maa Khadija. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi am jàmm. ñoo ngi am jàmm bu baax ça va bien. bien dormi. ah waaw tuuti tuuti rek. bien réveillé. bu yem rek. waaw au taquet Simon bu yem rek. benn bët lépp Simon moo ma ko teg. Yaas maa ngi lay nuyu sama rakk ji. yaa ngi am jàmm. Faf. sama xaritu xol bi. Fabzo. Ivoiriens appellent dormir en crocodile. ah, ah man de fi mu toll nii de samay nelaw moom xóotul. <laughs> xóotul de xóotul de déedéet mës nga maa ngi la. yaa ngi si jàmm. sant yenn saa day bañ Fabzo bi. moo tax damay damay ba pare. Mm-hmm. su baaxee ma dem ama mag laa la. mag bëggoon zoo bi <laughs> fajar gi noonu laa koy nuyoo Fabzo wala Fabrice. maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yi <laughs> di nuyu ñëpp ñi nga xam ne seetaan jamono ji euh, matinal bi ñu daal di dooree revue des ak euh, turbine yéenekaay fan jëm a tax <laughs> yéenekaay bi des médias dafa dellu en demul fan jëm mhm. moom dafa dafa dafa dafa ah, arrière euh, dafa dafa dafa puusaat ca gannaaw randu ñëw nag ci diggante président Macky Sall ak Amadou Ba PM nga dëgg nag indi nañ fi problème yéenekaay bi dafa ni nag xam nga nag dañuy wax dëgg-dëgg bu bu mbir yi dalee dañuy jéem a poser ay question lan moo waral lii amoon tribune nag tey loolu la xëyee nee na diggante ñaar yi kan moo wor moroomam wor la bind nee na nag lan moo tax moom mi nga xam ne moo doon ancien PM daal di nekkoon koo xam ne dañ ko bëggoon tam-tamal ko ah, yëkkati ca kaw fop ko ca kaw du laal suuf affaire étrangère te ku ko fase woon sax boo moytul baara sow di ko jëli ko dañ ko bëggoon daal yéenekaay bi nag mujj nag doon koo xam ne dañu ko jël sànni ca sën ah, soo ko waxul lu ñaaw sax bokkoo ah, problème am na kon problème am na yéenekaay bi ne nag fàttaliku leen moom mii di Amadou Ba laataa ñu koy tabb ngir mu doon candidat Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall nee woon na man ku ma tabb hmm. dama la yëkkati ba ca kaw. tam tamal campagne la jël samay moyens def ci. ñu dem ba ci biir ñu gis ne ne nag tab na amadu Ba waaye loolu amul. bañ nan ba keroog bi nga xam ne mi ngi démarré campagne bari na ci kàngam yoo xam ne benn APR demuñu. am na ci ñoo xam ne ay directeurs généraux lañ ñii ay ministres lañ ñi nekkoon ci administration territoriale bi te amadu Ba moo leen recommandé woon président Macky sàll te Sall bëggoon na kuppi bopp mbaa nag waaye nag bopp yu bari bu nu waddee tam day am nañu xam te dëgg. day am foofu nag la sàll xamee ni mhm. mënumaa xuus ci ñenn ñi mu jël ministre yi daal di dàq yéene kaay bi ne nag coowal présidentiel am na fi coowal report am na fi ñuy jàpp président Macky Sall di ko yekketeeme Amadou mel ni ku nekk ci suuf di xaw a reetaan reetaan wu sew ndax moom amadu bëggul woon ñu dàq présidentiel bi mhm. président Macky Sall dafa bëggoon ñu dàq présidentiel bi coow la nag moom moo di lan doon yekk président Macky Sall lan moo tax Amadou Ba mosu caa yëy yàbbi ca ça veut ko wax ji neexoon na ko waaye yéen a kaay bi dafa fu neex nee na ña nga naan ci élection présidentielle la waaye ressources yi bokk na ci jafe-jafe yi. Ah, mbirum mbirum kii nañ ko téye exploitation yooyu waaw kay. yéen kaay bi na bokk na seen jafe-jafe. yéen kaay bi ñëw ci lu am solo. dama bëgg a fàttali benn wax. Mhm. te wax jooju moom it ça moo ñu may loolu. Mhm. maanaam. les bandits se chamaillent toujours à l'heure du partage du butin. Hein. Mm -hmm. ah, il dit, bon, voilà. Les bandits se, chamaillent toujours à l'heure du partage du butin. ah, non, non, ah, ah, ah, non, non, non, je ne sais pas des balles que où dit reste Non, non, c'est là, dit dit là, il dit. Oui, il dit. Ah, ouais, mais mon moro hein. doit être cadeau ah waaw du say cadeau ah wax cadeau dañu koy defalee ah, comme primaire bu daan def eh, lecture j'ouvre les guillemets. so paré ne je ferme ce que j'ai ouvert sinon y a des mouches. kese waaw mu ngoog. Euh, survenu yene kay batay ñew ci émodialiser yi nga xamni ñu ngi dund jaxannama ci réew mi. waaw sonn nañ nak son nañ trop. nee centre ba nekk Louga mom tëj nañ ko. <laughs> tëj trop. ndax dafa am lu rax ca ndox ma lo xamné buñ ko bolé ak ñom mën na leen faat. fi ci. ah bon Diourbel xaw ma Touba parce que. seen seen machine bi dafa panne dafa paan il faut 11 millions pour réparer Ibrahima si te fii nii ci hangar bi ñoom ci boppam ña ngay ñaxtu parce que nee nañu jafe-jafe faju lañ fa am donte nag professeur bi nga xam ne dénk nañ ko xamle na ni machine yi bari na fa mais problème personnel la ñu am ah te terewul yéen xam ngeen ni liste d'attente bi bari na on hmm. parle de quinze mille presque personnes yoo xam ne ñi ngi taxaw di xaar place ah te place pour nga am ko faw nit Fatou Mar day taali waxtu woowu moom professeur bi nga xam ne ne bari nañ machine ñu am foofu noonu mais problème personnel la ñu am yu mën a defal nit ñi dialyse kon loolee gouvernement bi ñu ngi sàkku mu daal di cay àddu ñu daal di ñëw ci toog muy dox en marché chez naar chez na kër naar bi naar bi moom ma nga toog xale yaa ngi parier moom demul bougé wul moom dafa sax tëdd muy dox xale yaa ngi parier subaa ngoon guddeeg bëccëg da ngay nelaw di karaate muy dox waaye lii nag waxtaan la laaj coowal adjudant Abdourahmane Gueye nii nga xam ne barki démboo Ndiaye démb xaw ma barki démb la la yéene kaay xëy titre ko mooy ay produits yoo xam ne kenn war su ko jëfandikoo baaxatul ñu jëlee ko diggante Petersen nag marché ti Tilène ndekete jéego boobee ba mu ko defee dañ ko daal di jëlee fa mu nekkoon ci Ndakaaru muté Kër Massar. mais ministère du commerce am na problème de. sanction lay nuróol wàllum départ yi war nañ ko lijjanti. Hmm. su déclaration yi nga xam te ne d' importation des produits alimentaires yi ñuy joxee war nañ ko lijjant quatre-vingt-un milliards nañu wax na ne moom nañuy dugal ci projet de modernisation des marché kenn xamul fu projet bi toll ba léegi nii dafa bëri pro ministère du commerce moom lañ fa war a lijjanti bëri na doy na waar sur a nee na waxtu euh, pointage moom mi ngi mel ni tulleeg maale ci administration bi am na hôpitaux yi ko commencé Albert ak Sicap mbaaw mais source a dafa ñëw ci building euh, administrative beeg Euh, li nga xam ne mooy réhabilitation bi defaraat gi ah. xam ngeen ni coow loolee yëngu woon na fi mel ne lu seddaat ba ci lakk gi amoon onze milliards waaye Ousmane sunk bigam ak fëyam la yor ah, woo gaa yi ne leen toog leen moom ban toogee yéen a kaay moom dafa taxaw Bamba Ndiaye seen karo SA moom moo ko doon moo ngi nii nee na Bamba Ndiaye SA mi nga xam ne moo gagné marché bi ak El Hadji Malick Gaye bi nga xam ne mooy directeur général AGETIP bi nga xam ne mooy maître d'ouvrage bi ñoom la Sonko woolu taxaw di leen laaj ne leen laaj leen wax leen ma mbir yi fan la toll ah laaj na leen ko de ñu ne déet na waaye bâtiment ba lakk ngeen ne neuf milliards ngeen jël dugalaat ca encore fii fan lu lu ngeen dégg bu mu leen bett ah, waaw le quotidien le quotidien dafa ñëw ci ay pas yoo xam ne ñu koy def ndànk-ndànk bal tàkkul sagar xeeñul waaye jomaay daal mi ngi génn ndànk-ndànk di seeti ñoom war a seeti yéen kaay neen xa tey ji sax dina dem ca Mauritanie gis nga l'enquête quotidien ñëw na ci waaye tam ñëw na ci coowal passeport diplomatique yi yaas war na lijjanti gaayam passeport nag ci réew mi ndekete réew mi ñun rek ñoo amul passeport diplomatique ah xam ngeen loolu hmm? <laughs> waaye yow da nga caa maandu daal. kon yëgoo coowal passeport diplomatique bi ci réew mi dégg naa jël gaag euh, ñibbiwaatal ma nga mel ni tulleeg maale fa la nga xam ne mooy moom moo di ca jaarukaay ba ci aéroport Walf Quotidien dafa ñëw ci déclaration de politique générale ak motion de censure yu Ousmane Sonko mu ne nag gros risque la boo xam ne euh, Ousmane Sonko ma ngi ca war a tàbbi. waaye ay motion de censure mënu fee am dañ leen a bàcc nañ bàyyi nii doxal loolooy dëgg. <laughs> le point actu dafa ñëw. ci sayel nga xam ne annoncé nañ ko muy au au conseil bu collectivité territoriale conseil économique social ak environnemental waaye itam ba ca assemblée nationale problème bi mooy ngir ñu daal di seeyal ñaar yii il faut trois trois cinquième des députés daal di koy voté te coow li moom moo di moom Ousmane Sonko ki gaayam ñu majorité assemblée nationale te assemblée mënuñu ko seeyal fii ak des fii ak septembre loolu la yoon xamle coow la nag moom moo di kon seeyal ñaar yii soo moytuwul day xaar ah waaw ba léegi mu xaar. waaw day xaar mënta nekk jamono ji non non day xaar day xaar day xaar. dugal xam ne nii sa waay. bu ñu wala bu ñu fa ñëwee tey hmm? day xaar de day xaar de vox nag dafa ñëw. waaw eh, ci Alassane. Alassane nag ñu ngi ko gën a xamee ci Abdou Kama. moom économiste financier la. dafa ñëw ci li nga xam ne moom moo di palinu Ousmane euh, président Bassirou Diomaye Diakhar fay nee na président bu yees bi dañu koo fal ngir mu wut ay solution ah, te moom nee na am na ay solution coow nag mooy ma ngay dénk sénégal yi ne bu leen sax rêver maanaam ñi xam ne ñoo yor nguur gi ndax jàpp na ni la ngay wax ci opposition bi muy yomb ngay puus ak di xëcc te naan yi war na def lii bokkut ak réalité du pouvoir di critiquer dëgg la de nee na nag waaye coow li mooy faw ñuy gaawal jéego yi ndax buñ ko defulee sénégalais yi nga xam ne ñoo amoon yaakaar tabb leen sénégalais yooyu boo moytul mën nañ wëlbatiku seen ginnaaw dëgg la daal dal seen kaw ma nga xam le it ne dara mënta soppeeku ci réew mi tànk jógewuñu ca CFA nga xam ne daf ñu tënk waaye juróom milliards yit coow la douane mi ngi defi jéego nañ ko wax juróomi milliards daal dinañ koy saisir l'info yéen kaay dafa ñëw. ci opposition bi ñaataa des ci temps bi.

mom mm-hmm. kay dañu dem élection rek ñu ñu gagné ko mu ñëw parce que mo nek deuxième. Mm-hmm. mais opposition mais da koy assumer leadership bi. Mm-hmm. boo ko deful à la place ñeneen dañ koy def. ay ay ay bugaat problème moom est-ce que assumer na la tax sax mu demoon élection Amadou Ba il s'assume pas aussi. il est de fait. loloy wax di. loloy est-ce que ay jéegoom ak taxawayam ci politique moko may mu don candidat présidentiel attention. opposition parlementaire ou opposition terrain. opposition opposition élection présidentielle. fii fii nag opposition terrain la ñuy waxtaane te opposition terrain boobee muy indi opposition parlementaire. donc loolu débat lay doon. parce que faaw nga dem ci terrain bi ngir mën a taxawal fële ay député yu mat. daa war a organisé la woote. waxal leen man mu ngoog yéenekaay bi mu ne soo moytuwul nag libéraux yi dooni opposant rawatina parti démocratique sénégalais ak parti bu maître Abdoulaye Wade bi nga xam ne Karim moo ko nar a incarné Idi moom dooleem wàññeeku na ñan la te Karim mii daa mel ni ku pare ci parti bi te Karim a la mouvance <laughs> présidentielle il peut pas naa leen ak sama ah loolu lan lay mais mais mais Karim nag. politique bi mënu cee bàyyee noonu. Ah, baax na papa ma wekk yaakaar ci moom. moom mun na nekk doa rek dinaa day joxe ay ay directives fii. ñu ngi ba mu amee ba tey kenn sonatul fa kon baa jàmbur. mais WhatsApp am na kenn sonatul baa jàmbur. waa def congrès dindi Karim Wade te fal keneen ku nekk ci réew mi. tamit parti baayam baayam doon na la ko parti bi. non non nekkuñu ci ay parti papaam ak yooyu. loolu ah! weesu nañ ko. ah kuy xëccoo parti paay jàmbur daal sa papa dafa amul parti non loolu déedéet parti parti Abdoulaye la c'est pas est pas un congrès qui a mis Karim candidat Karim teguñu ko congrès de ah. dañoo jóg noonu dañoo jóg ah yow tamit xam nga ah. yéen kaay bi nee na hmm. sa Seck moom mi ngi ñàkk doole <laughs> Khalifa Ababacar Sall soo moytuwul mu jébbal leen ngay Barthélemy Diaz yéen kaay bi nee na Déthié Fall ak maali Gakou nag mooy coow la ndax ñoom dinañ dem ci opposition ndax fi mu toll nii seen xol yi ku ko xar bokk ay election présidentielle waaye doon président moo ci nekk ndax nag euh, euh, borom bitigu mbagg boo xaree xol ba rek faaw nga fekk ci boutique bu rëy magasin bu rëy sama mag mais ñoom yéene boobu la ñu am waaye nag nee nañ seen tënku ci yeewi askan wi ma ngi leen daal di tënk ndax boobaak léegi da dañ fa sañewoon euh, ay charte yoo xam ne tey bien la ligne de Guédiawaye. Malick Gakou. ah waaw non il y <laughs> diggante Thierno Alassane Sall Malick Gakou est-ce xëccoo mairie boobu nag. non non non Malick non. Malick Gakou weesu na nekkatul ay mairie. yéen kaay bi nag nee na am na ñoo xam ne troisième voie la. Ahmed est-ce que bëgg na nekk maire ba tey. non loolu moom faw ñu laaj ko ko la moo tax ah, bëggul amee ah, nekk def na vidéo di justifier xaalis yi maanaam tey jii buñ ko tegaloon choix ne ko bàyyil mairie bi ak continuer ci ban lay jël ak ah, taxaw ci vidéo di justifier je pense que toog la bëgg de yàlla baax na ah nañ dem euh, Thierno Alassane Sall ak Bougane Gueye Dany hmm. Anta Babacar Ngom Aliou Mamadou Dia bu pur nee na nag ñii ñoo nar a incarné li nga xam ne yéen bi mi ngi ko duppee troisième voie très bien